ñu ngi nuyu ki nga xam ni mooy xalif général di Mouride di sunu lépp di sëriñ Mountakha Bachir Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fii ci wér di ko indi andil nuyoo sëriñ Thiénaba sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu koy dàkkantele borom alquran yàlla dogal nag màggal bi di màggal goo xam ne di màggalu sunu wayjur la sëriñ Abdul Xaadir ñëpp xam ko ci lislaam taxawaayam ci lislaam ak bëgg gu bëgg diine ak bëgg gu bëgg lislaam ñu am ci nag suñu xarit boo xam ni ci këram lañ nekk muy Cheikh Bachir Abdou Khadir yàlla dogal nag ñu yàgg lool waaye muy koo xam ni àdduna bépp xam nañ ko léegi ci mbaax ak yiw ak bëgg nit ak bëgg li mu doon mooy doomu soxna moo tax bu bis bi jotee toujours dañuy àndandoo ñëw fi ci ndigalu Serigne ba maa ngi ànd ak sama mag Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck di xalifab Serigne Mouhamadou Seck moom it Serigne bi di wëllëreem su bis bi jotee toujours dañuy àndandoo ñëw comme ni ko kilifa diine yëpp di defee euh, sëriñ bi sëriñ Babacar Lo wax na ko léegi euh, waa kër sëriñ Abdoul Aziz Al Amin sëriñ Abdou ak seex euh, bas benn la ñu woon ndax dañoo bokkoon lu ñu bëgg sëriñ Abdou léegi laa koy wax sëriñ Khalifa nit la woon koo xam ni kenn du ko fàtte kenn du ko fàtte ci jëf kenn du ko fàtte ci jikko kenn du ko fàtte ci aw doxalinam mu doon koo xam ne ko mënoon defar la yàlla yàlla dugal ko ci aljana yi gën a kawe ñu ñëw fi nag di jàpp euh, jàppale Serigne Cheikh Bachirou Abdoul Khadir ci li nga xam ne ñoo ko bokk waaw ko bokk waxtu wi saa bu jotee Serigne Ahmed Saloum Nassour bu ñu ko waxee euh, dañ ko naan loolu suñu mbir la ndax suñu mbir itam bu jotee noonu la Cheikh ba si taxawee soxna si daal loolu mooy tànk kilifa diine yi fi ñëw yëpp nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax kër gi suñu kër la képp ku fi ñëwut ñun jàpp nañu ñun nga fi ñëwal ndax suñu diggante ak Cheikh Bass kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant ji fi ñëw ñëpp di ñaan ci yàlla yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi euh, nawet bi nga xam ne moom la ñu dugg yàlla na yàlla def ko nawet boo xam nawet bu sedd guy lay doon lépp ñor ca barkeel ca bari ànd ak jàmm ak salaam suñu kilifa yi nga xam ne amuñu lu dul ñoom ñuy suñu kilifa diine yàlla na yàlla sàmmal ñu leen yàlla yàlla sàmmal ñu leen suñu mag ñi nga xam ne dem nañ yàlla yàlla yërëm leen ñu ngi sant ñëpp